monsieur Macky Sall lu tax ma koy remercier d'abord li jiitu maa ngi koy remercier parce que li jiitu mooy euh, li mu defal Sénégal te kii borose ko tuuti te euh, ñi may ñi topp si man dinañ ci wax tuuti mais comme loolu tax ñoo jóg te lim ñu fi mënta wax yëpp yéen xam ngeen ko ci li mu defal Sénégal ak li tax ñun ñu ngoy ci moom ne dégg nga comme loi bi may na la toogal defaatal cinq ans Sénégal gën a avancé mais dinaa ko remercier ci li mu defal Sénégal fi mu bàyyi fi mu fekk Sénégal ak fi mu ko nar a bàyyi na dégg nga naa ko ci félicité dégg nga euh, dinaa ko remercier itam ci man ah li ma nommé lim ma nii mu woo ma ba euh, palais keroog juróom-ñaari nit ñoo fi nekkoon ak ñi ko wër moom moom ñi ànd ak président ñoo mbay Ndiaye euh, Mahmoud Saleh ñooñu président assemblée nationale dégg nga ñooñu ñoo nekkoon nii ci wetam. ak maintenant ñi nga xam ne ñoo yor kuréelu parti bi mooy la présidente du mu des femmes le le le le le coordonnateur. des jeunesses républicaines COJER bu Moussa Sow les cadres bu Diouf Sarr Diouf saar mu ngi foon les euh, les arabisants ak sama xarit sama neveu Souleymane Gadiaga dégg nga euh, sama nièce Maymouna Sissoko bu parcelle maa ngi koy nuyu au passage moom la président dénk enseignant républicain yi dégg ñooñu ñoo fa nekkoon ak man Mamadou Ba ma ñëw ci turu sage yi. Amadou Ba nit la koo xam ne alhamdulilah rabbil alamin liggéey réew mi moo ko ñor am na qualité yi su demee nekk ministre de finance pendant cinq ans ba Union africaine bi nga xam ne cinquante deux états la ñu choisir ko ne ko yow yaay meilleur ministre de finance et des affaires économiques de l' Afrique loolu. fierté la ci Sénégal war a am moo tax président tànn bi ñu ko tànn juumul parce que Amadou Ba am na profil bi am na ko charisme bi am na ko am na xam-xam bi te tam il est bien éduqué ku yaru la ku fonk doomu aadama la ku yiw la ku jullite la ku fonk ay waajur la ñun ñi nga xam ne ñooy magi APR bokk ci conseil national des sages de l'APR ñoo dajale tey jii ci samedi ji ci centre culturel Léopold Sédar Senghor bu pikin tënk nañu ñeenti yëf benn bi mooy depuis bi nga xamee ne président Macky Sall nee na du présenté wu ci élection présidentielle 2024 te nag mënoon na coo présenté parce que loi bi permettre na ko woon deuxième considérant mooy bi nga xamee ne président dafa wax ku bëgg a présenter nga ko wax ñun conseil national des sages dañu ne président koo tànn rek doy nañu deux troisième considérant bi mooy kii mu tànn nag muy Amadou Ba profilam maanaam ni ko yàlla bindee compétence am maanaam xam-xam bi ko yàlla jox ay qualité humaine am maanaam jikko bi mu jikkowoo muy jikko bu rafet yooyu yëpp doy nañu te loolu moo tax quatrièmement dañu d'accord ak président ni mu choisiré Amadou Ba pour mu nekk suñu candidat aux élections du 25 février 2024 yàlla na ko yàlla des yàlla nañu Amadou Ba jig ñu ndaxte parce que ñun mag ñi boo gisee suñu règlement intérieur suñu premier rôle mooy ku mer rek ñun suñu devoir mooy ñu dem seeti la waxtaan nag yow concerté wu ak yow diisoo ak yow ba indiwaat sa xel nga dellusiwaat ci ñun bu soobee yàlla frustré yi daanaka du ñu bari sax incha allahu rabbi du ñu bari mais ñi nga xam ne dañuy frustré maanaam kontaanuñu incha allahu rabbi dinañ former un groupe de choc un groupe de choc ànd ak ñu ànd dem seeti leen ku ci nekk individuellement waxtaan ak yow ba nga delluwaat sa xel.